muy dars numero في eh, quatre-vingt-sept Sidi وسئل رضي الله عنه هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته من المحل أو من تحت السرة من اللجنة كم مولانا رضي الله عنه ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy juddu dafa jaar ci ñëpp di jaar di juddu wala dafa jaar ci ron jumboxu yaayam bu tedd ba sayyidatuna amina radiyallahu anha fa ajaaba radiyallahu anhu moo dana cheikh radiyallahu anhu tontu ci qawlihi ci waxam ji mu wax ni i'lam xamal ni anni ra'aytu fi ba'di taqaayid gis naa ci yenn ci ay tënk yuñ tënk ci téere naqala saaxibuhu min kitaabi shifa libni sabin boroom kooku tënk bind yooyu mi ngi toxalee mbindam mi ci téere bi ñuy tuddee shifa bu ibni sab qaala mu ne innahu sallallahu alayhi wa sallam innahu xaraja min taxti surra ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci ron jumbaxu yaayam ba ولم يخرج من من محل الولادة جدو تنيني جدو وكذلك غيره من آه، جميع إخوانه من النبيين من نكنون بولم بك بك من شيون في لنجدو والمرسلين أجنين صلى الله عليه وسلم لنجدو هكذا نقله ابن سبعين لأن يعني نيلكو ابن سبعين تخلي جيلكو تي آه، نون لكو إندي كتير دينا خمنا موي كتاب الشفاء إيه، مولانا الشيخ رضي الله عنه نعم، ولعل المستبعدين لذلك يقولون من نيا خمنك دني كونتور لي امان ني وخني لو كان هذا كما قيل بفك مير ني لا دمي ني صلى الله عليه وسلم يدو في نيب دي تدو من بو فكون نون لا دمي لا نقل وتواتر كونون واخ جوج نينكو توخال مو دون واخ جو خبر متواتر لا دور موي مبولو دي نينكو سولو jële ko ci mbooloo di ko jëlee ci ay mbooloo ba mu yegg ci ñun tey li annahu ahamul ndax bokk na ci mbir yi ëpp solo wala shakka anna al wiladata yaxduruha jamcun min an niswa te euh, wasin jigéen ñi dinañ ko teewee am mbooloo ci jigéen ñi dinañ ko teewee wan niswatu jigéen ñi nag حضرنا والنسبة جيجن والنسوة جيجن أشد الناس حرصا على إساء ما يرون من العجب نيو جني يي نيو جنا تار تيني فرسي وال خبار بولين يم مانام جيجن دو تيي سكري لوم لا خمال وخو لول لا مولانا سيد ني كي ني مون ني كونتر لول لا ولو وقع لفسته bu fekkoonte na loolu moo am konoon jigéen ñi siiwal nañ xibaar boobu konoon jigéen ñi siiwal nañ xibaar boobu la fasatu niswa alxawaadir jigéen ñi teewoon ci juddu ga konoon siiwal nañ xibaar boobu li adami sabrihinna ala alkatmi ndax ñàkkaa muñ biñ ñàkkaa muñ a muñ téye secret walaw xaddaha bii niswa bu fekkoon jigéen ñi wax nañ ko la tawaatara fil axbaar dina doon xibaar boo xam ne bu siiw la ci goxu kaw suuf bi yépp fa la adamu tawaaturihi fi axbaaril ard ñàkk a siiw ak xibaar boobu ci goxu àdduna bi day tegtale au sukuutin niswati ak noppi gi ci jigéen ñi noppi ala adami xuwa day day tegtale ne loolu mbir mi demeewul noonu kon ñii dañuy weddi ni yonentu bi sallallahu alayhi euh, maanaam jagle boobu yàlla jagleel ko mu juddoo ci ron ju mboxu ndayam loolu wérut ñii dañ koy wedd wa huwa al xuruj min taxti taxti surra lii la nit ñi wax léegi nag mawlana cheikh tidiane radiallahu anhu mi ngi wax ay waxam moom kon lii ma wax ni yépp du waxu mawlana cheikh tidiane radiallahu anhu dafay nettali rek li gaa wax léegi nag muy tontu ci laaj boobu ne wal tontu an hada al ci bile كهواي أن هذا ملي يرميه كرخ kar baax la boo xam ne azina allahu fi sitrihi yàlla joxe ndigal ñu nëbb ko wa adami ifsaa yi bañ koo feeñal lil xalq ci mbindeef wa dalika yastadai nazarayn suturaal boobu yàlla suturaal xibaar bi mën nañ ko déggee ci ñaari anam an nazaru l awal gis-gis bu njëkk bi ci yooyu mooy ann al ixfaa lima xafiya lépp lu nëbbu rekk yàlla daf koy nëbb wa zuhur lima zahar lu lépp lu feeñ yàlla feeñal ko huwa euh, amrun mawkulun ila allah maanaam fe nëbb lu nëbbu ak feeñal lu feeñ loolu mbir la boo xam ne lu ñuy wakkil la ci yàlla yuziru ma yashaau bi sababin mooy feeñal lu ko soob teg ci sabab aw bila sabab wala mu bañ koo teg ci sabab ولو توفر الدواء دواعي الإخفاء فكي يي ورا ينب يب دجنا ويخفي آه، آه، ويخفي ما يشاء بسبب من موي فينال لوم بغ فينال دون فك لي ورونا سبب بو ينب كو يب تيونا مون ويخفي دينا نب ما يشاء لوكو سوب موم يالا دي سبب دي سبب وبما أو بلا سبب ولا الكلود سبب ولو توفر دوائزو دونتك يورا دجي برسي والخبار ديب دجنا وهذا من ذلك القبائل المنى لي ما نام جد جيرون تبي صلى الله عليه وسلم كي انام مبوبلا كم بيرم يالا والنظر الثاني يارب الجسد أن خروج الصفة العليا من تحت السرة تنزيها عن محل القبر fa yakunu amruhu an allaha taala yaftahu al agliqata kullaha min al umam mu ne génn nag aji sell ju kawe ji ju yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci ron jumbuxu yaayam ba loolu yàlla yàlla daf ko defal tanzihan ngir setal ko an mahallil qabir ci bërëb ak soberi mu bañ faa jaar fa yakunu amruhu loolu nag dafay dellu ne mbir mi mbiram moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla moo ubbi ay bunt yu tëju woon lépp ñeel ndeyam ji mu mën a juddoo ci anam boobu moo xam min jildin lépp lu tëju woon ci daram bi yàlla ubbi na ko wa sifaafin wa arxaamin ci ruhumba xataa yuxrijahu wa yarudduha ba mu génnee ko mu juddu yàlla delloowaat ngir yooyu benn bu ci nekk ni melam kama kaana fi asra min tarafati an ci li gën a gaaw a wa yarudduha kadalik mu delloo ko nim meloon wa hada gayru baidin fi qudratillah loolu jombut ci kattanal yàlla summa innahu topp nag moom yàlla ida ida araada allahu al ixfaa saa yu nam ne ndëbb dara alqal gaflata ala nisaa al xawaadir maanaam jigéen ñi teewoon ci jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di juddu yàllaay toqal ci seen xel yi ak càggante moo fay toqal ak càggante misla an yamsasnaha fa yaqulna ma zaala amruha mutaaxiran an wilaada buñ ñëwee saytu ndaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna amina ne ah ci de ay ay mbiram matagut maanaam jotaguta am doom wa hiya tatawajja mi ngi méttitlu maanaam mi ngi yëg ay métti fa yaxfal na an ha ñu sàggane ko ci saasi rek fa yaftaxu llahu على المرأة يالا وفي الجيجين دي الوالدة من السرة مانام مدادي مانام جر أبدومم مجاريتي سوفو جمبخم فيخرج الولد أسرع من طرفة عن دوم دي داري جدو تلو جنجا صفقت ويردها إلى حالتها الأولى في الإلمام مدلو كتحال بملون نجيت دوم جدي جدو ci lu gën a gaaw ci xef ak xippi wa yujri damma min mahallil wilaada mu jaarale deret nag ci bërëbëg bi nga xam ne mooy bërëbëg juddu naturellement fa taqulu niswa jigéen ñi ne xat xarajal wala doom juddu na fa yaati niswatu jigéen ñi ñëw wala yarayna annahu xaraja min mahallil wilaada ci wujudi adami dàmm ñoom bu ñëwee dañuy gis ni wala yarayna duñ gis annahu ne moom doom ji xaraja génnee na min mahallil wilaada ci bërëbëg judduwaay لوجود الدم ده درد بفا نه وعدم وجود الدم من تحت السرة تشرون جنبه في تم الدين فقه ويقع الكتم من الأم الوالدة للنبي بأمرين وكذا فإن لا يجور ينون تبي صلى الله عليه وسلم ممدو في لب سكرين بوهو نجر نيار نجر نجر مجاك نموي إلقاء سر من أسرار من الأسرار أسرار الإلهية على قلبها تبال بيا الذي تبال مبوت كمبوتم يا الله يشي fa yarbitul qalba ala al ifshaai bi amrillah mu daal di takk xol bi ba du mën a siiwal mbiram yàlla ci wujudi zalika sirr ndax mbóot moomu gane ci xolam qaala subhanahu wa taala yàlla mu kawe mi subhanahu wa taala wax na ci suratu qasas ne wa asbaha fuaadi um muusa faariga uh, uh, xolab yaayu muusa ji mujj naa nekk xol boo xam ne faarigan xol bu féex la in kaadat la di xaw tuut rek mu feeñal li nekk ci moom wane ni Moussa doomam la buur ne lawlaa rabatna ala qalbiha bu fekkoon takkuñu woon xolam linakuuna min al muminin li takkuuna ngir mu nekk min al muminin bokk ci way gëm yi kon yàllaa ko dimbali ba mu mën a denc secret boobu ba waxut ni moom moo jur Moussa kam yàllaa ko suturaal tamit ndax jigéen ñi xamoon nañ ni ëmb na waaye amul kenn ku ci siiwal secret boobu ne kii am na doom kama rabata allahu ala qulubihim fi xaali lhamd comme ni nga xamee noonu la yàlla takkee seen xol yi ci jamono yi ëmb gi in raayna shay'an min al ahwaali alxaariqa jigéen ñi ëmb wëli yàlla yi buñ gisee dara ci mbir yi nga xam ne ay xar baax la addallati ala nubuwati dalika alwalad yi nga xam ne day tegtale nubuwaat boobule doom ñu ëmb ci naw min ci nelaw aw yaqasatin wala ci yeewu dañ koy nëbb wal amru saani ñaareel mbir mi ida araadat al ummul walida ifsaahu zalik bu fekkee e, yaa ji jur doom ji xam ne ci ci ron jumbo xam la doom ji juddoo bu fekkee dafa bëgg a siiwal xibaar boobu la taxaqat takzibu min annisaai alxawaadir jigéen ña teewoon ci juddu ga dinañ ko fen loo li duhuri dammi fi mahallil wilaada ndax deret ci doon sotti jaaree ci bërëb ak juddu gi wa adami wujudil athari min taxti surra ak ñàkk am benn jeexital ci ron mbax bi nga xam ne doom ji fa la juddoo laa aynan du lu ñuy gis wala asaran du jeexital wala shaahida te du am benn seede boo xam ne yu saddukohaa dina ko dëggal kon nag fa tatawafaru dawaay la aada ala takzibi ma tadda'i bu ko defee nag liñ aada woo di gis mu gisee lu bokkut ak moom rek dinañ ko weddi in daatu fekkee daf ko woote fa yaxmiluha تحقق هذا التكذيب على الكتم بان بني بان نغني فن لوكو موكو يوبي مو نيب سيكري بوكو واذا لم ينقل من هذا الامر شيء تفكي نك فاذا لم ينقل بفكي توخلو من هذا الامر شي مبوب لمير شيء دارا فهذا هو الجواب لي موي تونت بي عن هذا المحط شي بلاي تاوال انتهى جهن منين فان قلتم بفكي دا نغني واخني innahu taahirun sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku laab la jëmmam ji dafa laab wa damu qabla xuruji wa lidalika lam yaxruj min maxalli alqadaara bu fekkee da ngeen a wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku laab la moo tax génneewut ci bërëbu jaarukaay sobe bi fa kayfa daxala maahu wa huwa nutfa kon nan la nan la ndeyam ëmbee tam ëmb gi jaaree ci bërëbu génnukaayu Euh, sobe boobu nekk di nutfa kon nag fa yalzamu maa harabtum minhu awalan bu ko defee li ngeen doon daw ci njëlbeen ba mooy daal di taxaw ci seen kanam aw naqul wala ñu wax ni wala ñu wax ne xuliqa min riqi abihi yonent bi sallallahu dañ koo bindee ci riq maanaam euh, ab wal wala tuflit boo xam ne ci baayam la jógee kama qaalahu baadu man haraba min anna nutfata qazira comme ni nga xamee ni ñenn ñi nga xam ne dañuy wax ni mëniyu euh, euh, euh, du sobe wala sobe la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam warta ci mëniyu ñiy wax loolu ñoom la Mawlana Cheikh Tidiane bi tontu nag ne fa ajaaba radi fa ajaaba sayidna radiallahu anhu sayidna tontu ci wax ji ñiy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa ku laab la moo tax jaarul ci bërëb boobu wala ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax sosoowut ci nutfa maanaam ci mëniyu يوخ لولو لي تونتو ما لا يصح كونه خلق من ريق أبيه ما لي يوهني يونت بي صلى الله عليه وسلم تي أب نيقو بايم لا لا لا لا جدو ولا كي أب تفلت بايم لجدو ويروت بل هو من النطفة مومتي مني يولا جوجي كغيره من الأنبياء كم نينين يدوهن مومتي نيني الصلاة وسائر البصر أكبر من ودخلت النطفة من المحل المعلوم كغيره maniyu bi jaaree na ci bërëb bi biñ ko xamee mu di ko jaaree comme ni nim mu ci keneen ci weneen jigéen doomam juddu waaw li annaha xiina duxul aariyatun an ruux ndax maniyu ba muy dugg ci jigéen ji dafa rafle ci ruuxu amul ruuxu wa amma inda alwilada wilaada ba muy juddu nag fa bi sababi taharati ruuxi alkarim sababak sabab gu tedd googu moo tax xarajat min gayri mahalla mu génnee fu duwut bërëbam qaala saail aji laaj bi ne fa ma taqulu fi ruuxi xiina kaanat fi ruuxum wa damu maa kon nag bu fekkee doom ji ba muy judd dafa ànd ak ruuxu maanaam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam muy judd dafa ànd ak moo tax jaarul ci bërëbab sobe kon kon kon nan la ruuxu googu doon dundee ci ruuxum ga ànd ak deret deret sobe la فأجابه مولانا الشيخ تجان رضي الله عنه تنتك نكو أن الرحم طاهر نكو رحم دخل والدم قبل خروجه من الرحم طاهر كذلك درت بلا ميجيني كي روحهم جي دخل نيروهم لابن انتهى كلامه رضي الله عنه وهم جي مولانا الشيخ تجان رضي الله عنه جيهنا min imlaihi ci dicté bi nga xam ne dicté nañu ko min imlaihi ala muhibbina dicté bi dicté suñu soppe Seyd Mouhamad ibn al-Misri xafizahullah bi man ni Seyd Mouhamad ibn al-Misri yàlla na ko yàlla wattu ci ak mayam wa min kalaami sayidina radiallahu anhu bokk na ci ay waxu sayidina radiallahu anhu kon jeexal na ci masala bi mi ci beneen masala fi qabuli tawba ci nangub tuub annaha maqbulatun xataan ne ku tuub faaw rek yàlla nangul la sa tuub qaala radiallahu anhu mawlana radiallahu anhu wax na ni addalilu ala qabuli tawbati annahu qatiyun liy tegtale ni tuub moom saa yu ko jaam bi defee yàlla nangul ko ko par la force qawluhu taala waxu borom bi tabaraka wa taala bi ñuy wax ne innama tawbatu ala llahi lilladina yaamaluun mu ne innama tawbatu naka tuub ala llahi maanaam yàlla waral na tuub na maanaam waral na ne dina nangul tuub lilladina ñeel gaa ñi nga xam ne yaamaluuna suua dañuy jëfee ñaawteef bi jahaalatin ci réer summa yatuubuuna ginnaaw gi ñu tuub min qaribin ci app bu jege fa ulaayika ñooñu yatuubu allahu alayhim yàlla dina leen nangul tuub wa kaana allahu bu yàlla masta dañ aliman di aji xam xakiman di aji xarale mu ne wax qawluhu ak waxam ji nga xam ne moom borom bi tabaraka wa mu ngi koy wax ci euh, suratu furqaan ne illa man taaba lare maanaam yàlla day du toppee bàkkaar lu dul maanaam dina baale bàkkaar ba muy wax ne yu daa yudaafu lahul azaabu yowm alqiyaama yaxludu fii muhaana defkatu bàkkaar yooyu ki nga xam ne dafay dafay dafa rey bakkan dafay woote ci lu duwut yàlla maanaam bokkaale di rey bakkan bu ñu warta rey di njaaloo di def naka su noonu mu ne képp koo xam ne yaa ngi def lii yaa ngi bàkkaaru ñooñu yàlla da leen di fulal mbugal mi te da di saxal ci mbugal mu leen di doxe dal mu ne nag illaa man saaba ba mu des kutub wa amana te wa amila saalihan mu jëf lu baax ulaayka ñoo yubaddilu llahu sayaatihim yàlla dafay soppi seeni ñaawteef xasanaat muy yu baax wa kaana allahu bur yàlla mësta dañ gafuuran aji bale rahiman di aji yërëm mu waxaat ci beneen laaya ne yàlla waxaat na ni moom yàlla wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibaadi moom yàlla mooy jé nangul jaam bi ak tuubam wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibaadi laaya boobu mi ngi nekk ci suratu shura wa yaafu an sayyaat muy jéggale ñaawteef yi wa yaalamu te xam na ma tafaluun mboolem li ngeen di def إلى غير هذه من الآيات أجينن يبوكتك يشي أي الدالة يوخم ندي على قبول على القبول كننغو توب أنه قد هيون لولو يالا دولا لأنه وعد التائب بالقبول الله يالا ديك أجي توب جينا دي نبكو ننغل ووعد ووعده مم دلم مم يالا لا يتخلف عند أهل الحق دووت مك في ينخم نيوين يالا يالا fa in qiila ndeem waxeef nga nag ala mazhabil jumhur ci mazhabu li nga xam ne ñoom la ñuy tuddee jumhur ne inna al qabul al qat'iyya al maxuuda min al waad yumkinu an yakuna fi baadi al afraad nangu tuub yi nga xam ne yàlla daf cee dogu ba pare daa di daa di koy dige dañ koy nangul ñenn ñi waaye du ñëpp la la ko yàlla defal bu fekkee loolu nga wax comme ni ko jumhurul ulama waxee mawlana Cheikh Tidiane ne xultu ma wax la ni inna hadihi al ayat al ma tuddal la ammatun aaya yu matale la fi jinsi attaib ci jëmmi mboolem aju tuub wala dalila ala xusuufiha bi fardin duna axar amul benn tegtal buy tegtale ni dañ koo jagle diw wala diw وايضا بكاي ان الكريم يالا ميغا خامن موي ادي تدغي اذا وعد بامر سديجي دارا لا بد من وفائه فهو متل كو عند اهل الحق يعني حق بخلاف اذا اوعد مو ووتك نك سو تكو يالا من لا تكو با بري بال واي سولا رك دينا لا فانه نح من الكرم ان بوكنا سي تيرانغي يالا ان يتركه كله مانام ليپ لوم لا رك مو wala yalbimu alayhi naqsun te loolu du du jur ak manqué manqué ci moom bal minal kamaal yi dafa bokk ci matam gi taxalluful waayid duunal waadi maanaam yàlla daal di lay tëkku ba pare baal la waaye matal dëhaliim la dëhaloon wa dalilu gi nag ci sunna qawluhu alayhi salaatu mooy waxu yonent bi nga xam ne wax na ko ci xadiis boo xam ne imaamul buxaari yi indi na ko ci kitaabu tafsir baabu tafsiri surati nuur xadis raqm xadis numéro quatre mille sept cent cinquante muslim indi ko ci kitaabu tawba baabun fi xadisil ifki muy xadis deux numéro deux mille sept cent soixante dix lan la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax dafa ne iza tarafa innal abda boog naka jaam bi iza tarafa bi zanbihi saa yu reconnaître bàkkaaram summa taaba minhu mu tuub bakkaar boobu taaballahu alayhi yàlla nangul ko wa fi taabiri bi siixatil maadi yonentu mu ngi ko waxee nag ci siixatil maadi maanaam saa yoo xamee ni def na bàkkaar ba pare wëlbatiku reconnaître ko mu ne taabir bu mel noonu nag ishaaratun junju la ila taxqiqil wuquwaay ci dëggal ak ak tabbik nangu tuub li anna tilka xaqiqatul maadi ndax lii dëgg dëgg dëgg la goo xam ne dëggu gu wéy la fa in qiila ala madhabi aljumhur bu fekkee dañoo wax sukkandiku ci madhabu jumhur law kaana alqabulu qat'iyan ñu ne bu fekkoon yàlla day nangu tuub saa yoo na tuubee rek mu nangu ko lazima an laa yaasi konoon euh, ki tuub ba pare day war ci moom mu bañ a ci moy qul naa mu ne ñu wax ni euh, laa yalzamu bal kullu zanbin yajibu alayhi an yatuub maanaam konoon maanaam yàlla waralul ci kenn ku tuub ne ko dootoo defati bàkkaar waaye dépp bàkkaar boo def rek dafay war ci yow nga tuub ko wala yakunu naqsan di tawbatihi ula te du ma naq naqdan te du kontranteg li nga xam ne mooy tuubam gu njëkk gi li qawlihi alayhi salaatu wassalaam ndax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne wax na ko ba tey muy xadis boo xam ne rot na ci Euh, sunan abi daawud kitaabul wit baabul fil euh, tirmisi itam indi na ko ci kitaabu daawaat muy xadis numéro trois mille cinq cent cinquante neuf yonent bi sallallahu alayhi wax ni maa asarra man istagfara walaw aada fil yawmi sabiina marra maanaam kii jéggalu yàlla du nuur mukk ci bàkkaar donte que baa mu waat na bàkkaar bi juróom-ñaar juróom-ñaar fukki yoon ci saa yu jéggaloo yàlla jéggal ko wa qawluhu alayhi salaatu wassalaam ak waxu yonentu bi alayhi salaatu wassalaam di ñëw ci ibnu maaja yonentu ne attaibu min azambi kaman laa ta kaman laa zambala ki tuub ci bàkkaar mel na ni mësta bàkkaar dalilun ala qabuli tawbatihi qatan lii dafay tegtale ni yàlla nangul na ko tuubam dëgg wa ida qaddara allahu alayhi zanban su yàlla dogalee ci moom mu defaat bàkkaar rajaa ila tawbati day delluwaat rek ci tuub day delluwaat rek ci tuub di yàlla dogale mu def ab bàkkaar day delluwaat rekk ci tuub loolu lu wer la mu ne wa fi qawlihi alayhi salaatu wassalaam rot na yi tamit ci waxu yonent wax ni law lam taznibu muy xadis bu am solo maanaam euh, yoon yonent bi dafa ne fekkente ne doonu leen woon def bàkkaar yàlla da leen di rey indi fi ñoo xam ne dañ koy tooñ mu di leen jég di ko jéggalu mu di leen jéggal xadis boobu boo demee ci muslim indi na ko ci kitaabu tawba baabu suquuti zunub bil istigfaari tawbatan tirmisi indi na ko ci kitaabu daawaat baabun fi fadli tawbati wal istigfaar Euh, ishaaratan loolu nag junj la boo xam ne yoon daf ko wax ila tinaa ila tinaa bi abdihi taib min zunubi ndax yàlla eh, maanaam yittewoo bi ñuy yittewoo jaam ji nga xam ne dafa def bàkkaar ba pare tuub bàkkaar boobu walidalik loolu moo tax qaala taala yàlla mu kawe mi wax na ni inna allaha yuhibbu tawabin yàlla dafa bëgg aji tuub ji te dina ko fay wala wala nga inna allaha naka yàlla yuhibbu dina fay at tawaabiin way tuubkat yi mu ne walaw lam yaqbalillahu tawbatahum bu fekkoon yàlla nangu wutoon seen tuub maa ahabbahum du leen bëgg wala yalzamu min qabuli tawbati an naqtaa li taayibi bi saada ولا يلزم كنندو ورل من قبول التوبة تشننغوك توب أن نقطعني دقل للتائبين يلأجي توب دي بالسعادة تشتخ لأن ذلك الأمر الله دير مؤمنة أمر مغيب أم آه لأن ذلك الأمر الله بوبل مبير آه، أمر دير لأن ذلك نخلول أمر دير لبو خبني مغيب العاقبة loo xam ne mu jëm lu fàddu la xamuñ ko wa innama nahnu natakallamu ala ma zahar waaye ñun dañuy wax ci lu feeñ mina nusuusi ci texte yi al nusuusil kitaabi wa sunna ci texte yi nga xam ne ñu ngi ci alquran ak sunna waaye dan ba tey inna saadata naka texe laysat muwafaqatan ala tarkil maasi ajuwul rek ci bàyyi mooy yàlla wa lidalika loolu moo tax qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni walan yadxula ahadakum amalahul janna ne kenn ci yéen jëfam du ko dugal àjjana qaalu ñu ne ko wala anta ya rasulallah ba tey ba ndax yow ci nga bokk yow mi yàlla yónni qaala mu ne wala ana ah, waaw ba ci man illaa yataxamadina allahu bi rahmatihi lu dul yàlla daa di may muuree yërmandeem xadis boobu boo demee ci buxaari indi na ko kitaabu riqaaq baabul qasdi wal mudaawamati ala al amal xadis numéro six mille quatre cent soixante trois ibnu maaja indi na ko ci kitaabu zuhd haada lii nag dalilun dalil la bu wér peng boo xam ne day tegtali ala anna duxul aljanna bi maxdil fadl ne dugg àjjana moom ci ngëneelal yàlla rek la ne wan naaru bi max di at duggub safara yi tamit ci màndu teg yàlla la wa innamal amalu jëf yi ngay jëf nag alaamatun fi rek ci di feeñ alaama sabaqa ci lu jiitu woon ci dogalab yàlla waqad tawaafaqa euh, fi nafsi l amr waqad tawaafaqa dëppoo na nag fi nafsi l amr ci même mbir mi waqad taxaalafa wuute na li anna allaahiqa la laa yakuna sababan fi saabiq ndax allaahiq maanaam li wéy li ñuy dabaatal du nekk sabab ci lu jiitu woon كما قال بعض المحققين كون نيغا خاميني ني نجي محققون نون لنج كو واخاي انتهى جهنا من املائه على محبنا تي ليغا خاميني مولانا شيخ تيجان رضي الله عنه ديكتناكو سوني صوفي بي دي شيخ محمد المصري رضي الله عنه أمنه الله وحفظ علاه رضي الله عنه مؤمنك أي بيتنا وهذا جواب عن سؤال مهذبين أتى بنظام رائق محكم محكم الوصف لي تونت لا كي لا جب تالي بو يارو بو خامني نيونا اندي نوسيو كاوي و خامني و خارني لا كي او ميلو فمنه سجود المرء فوق الفراش تا بوكنا كي موي سجود تك نيت كي كي كاولا لا مصلاه فيه كاللحاف وكالقطف moo mm, mm, sujjóot go euh, ci kaw laltu boo xam ne laa salaatuhu fii euh, laa salaatahu fii julli amut fa kelli xaafi ni ki ab euh, laytaay waxal xatki mu ne tawa tawaqafa fiihi lbaadu min olamaay naa masala bi ñenn ci olamaay dañ cee taxaw wa sahara fiihi lmana baadun bi ma waqaf ñenn ñi nag ñu siiwal ci ne dañ ko tere wa za kulluhu ma daama raxwan fa in yakun taballada qaalu bi laa daa fi mu ne li yépp nag rek fa in yakun su fekkee dem na ba am qaalu bil jawaaz maanaam ñi nga féeteel ci boroom xam yi wax nañ ni dagan bila bi